sama xale yu jigéen ak de waaye kaa bi moo réer kaa bi taala jasaaka wax na ma lépp. yóbbu ma ko yóbbu woon fi ko yóbbu woon lépp conseil kañ la gàtt conseil am. instant bi sama conseil ñëpp a boroki. waxoon na dara instant bi kaa bi moo xew ci réew mi la wax <laughs> lu ma def. Sénégal. Euh. yaa la ko def Fatou Ba. sonu kaw. ah la ma dagg wax ko. mun naa am envie créer nii. coow li de. Euh, coow li de xam na nga nelaw yëgu ma ko. xam nga coow li bari na. ma si dox mais. daal di moom moo wax. boo ko yóbbu si appartement ay lépp ay. ay yow ay yow mii ay yow. man maa am problème dama créé rek. <laughs>